asalaamualeykum man ma dellu siwaat pour ñu yeggali waxtaan bi maa ngi leen di nuyu di leen siyaar bu wër a wër j'espère que yéen a ngi am jàmm tey nag dinañu waxtaanee lu bari ci mbiru Sénégal fan yi Sénégal dafa am naqar bu rëy bu fa xew muy la disparition de Bruno Diatta Bruno Diatta yàlla dafa def mu nekkoon nit ku discret mais aussi nit ku baax ku bëgg Sénégal yàlla def liggéey na ak président yi jot a jiite Sénégal yépp Senghor ba ci Mbarodi Sall waaye ñëpp xamee ko fulla ak fayda euh, tey nag dama ko bëgg a rendre benn hommage Bruno waa Neema la benn dëkk bu nekk Casamance bi mu amee bagam dafa bokk ci les meilleurs ci loolu mu ñëw Dakar bi mu ñëwee Dakar pour ñu may ko bourse pour mu dem jàngi à l'étranger bi mu ñëwee jamono boobu noonu Assane Seck professeur Assane Seck moo nekkoon ministre de l'éducation nationale Assane Seck recevoir ko bureau mu laaj ko lan nga bëgg a jàng Bruno Diatta ko maa ngi bëgg a jàng science politique safurla waa aussi laa bëgg a wax waa aussi la mu ne ko maa ngi bëgg a jàng science politique professeur Assane Seck ne ko du ñu maye bourse science politique waaw aussi mooy waaw nee ma aussi la nag mu ne ko du ñu maye bourse science politique mais bu fekkee bëgg nga jàng droit wala leneen mun nañ la may bourse jamono boobu Senghor dafa instauré woon benn système boo xam ne bëgguñu woon n'importe qui jàng politik dañu bëggoon yenn doomu yenn kilifa yi ko jege nii rek lañ daan may bourse pour ñu dem Sciences Po ci loolu professeur Assane Seck ne ko jeune demal nga réfléchir ci ma reviens dans deux semaines nga wax ma lan nga bëgg a jàng ci la dem deux semaines plus tard mu ñëwaat bi mu ñëwee ministre bi recevoiraat ko mu ne ko j'espère que tu as bien réfléchi lan nga bëgg a jàngi Bruno Diatta ne ko monsieur le ministre maa ngi bëgg a jàng science politique ministre bi xool ko reetaan mu xam ni il n'a pas n'importe en face de lui il avait compris que dafa am un jeune déterminé bu jàkkaarloo ak moom lim ko waxoon iliya y a ci ginnaaw loolu la ko waxaat biñ jàkkaarloo waatee kooku ne ko d'accord dinaa la jox bourse nga dem jàngi Sciences Po Euh, loolu c'était dans les années soixante huit soixante neuf wala soixante dix léegi mu takk ay bagaasam mu dem France mu dem France jàngi Bruno Diatta mu ngi demee France avec baccalauréat littéraire lycée Vanves la jànge mooy actuel Lamine Gueye mu ngi amee bagam avec mention bien euh, bi mu demee Sciences Po mu def foofu quatre ans bi mu defee quatre ans mu décroché ay diplôme am mu ñibbisi Sciences Po bu Toulouse la jànge université de Toulouse bi mu ñibbisee mu dellu bureau professeur Assane Seck Assane Seck boobu la Ablaye Wade tuddee université bu Ziguinchor université Assane bu Ziguinchor euh, bi mu nekkee France Toulouse mu ngi dëkkoon benn ville bu ñuy wax euh, voilà bi mu ñibbisee ak maîtrise en science politique mu ñibbisi en 1976 mu dellu seeti Assane Seck Assane Seck ne ko da ngay def concours ENAM à l'époque c'était ENA École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM euh, mu def ENAM deux ans mu génn major de sa promotion mu ngi bokkoon même promotion ak Doudou Salla Diop ancien ambassadeur du Sénégal en France léegi bi mu paree enam Assane Diouf boobu sengoor nommé na ko chef de la diplomatie sénégalaise c'est-à-dire ministre des affaires étrangères bi mu paree mu dellu seeti Assane Seck Assane Seck ne ko mun nga intégrer mun nga intégrer ministère bu la neex mais man je préfère nga ñëw toog sama wet euh, comme ça ma encadre la formé la parce que Assane Seck xam na ni ci biir ministère yi dafa bëri ay xeex dafa bëri ay problème te gis na jeune boo xam dafa déterminé ku sérieux ku honnête koo xamante ni buñ ko jàppalee rek il va devenir quelque chose dans ce pays donc Assane Seck teg ko ci wetam mu nekk ministère des affaires étrangères di fa liggéey comme conseiller technique am macha allah mu nekk ku xarañ ci lu muy def ku discret ku yaru ku intelligent ku noppi ku nangoo liggéey dégg naa musul tardé te mooy mujjee wàcc lu nit nanguwul def moo koy def du jaxase nit ñi comme ni yenn nit ñi di def naa fekkul daal Euh, te ku mu mën a dimbali da lay dimbali à l'époque Senghor daan na def ay visite surprise ci ministère yëpp à l'époque 17 ministre rek moo amoon donc 17 ministères pas de plus pas de moins Senghor un jour ci routine yooyu mu doon def mu ñëw ministère des affaires étrangères bi mu ñëwee mu dugg bi mu duggoo rek mu tasanteeg Bruno Bruno nuyu ko sëgg continuer di dem Senghor dugg bureau Assane Seck bi mu fa duggee mu ne ko jeune bi ma tasal léegi nii ci couloir bi c'est qui mu ne ko décrire ma nu mu mel mu ne ko dafa xees njoolul gàttul tuuti dafa yem xees ni ah mu ne ko oui c'est Diatta il extraordinaire mu ne ko oui j'ai senti quelque chose am na lu ma sentir ci moom xam ngeen Senghor dafa am secret bu mag bu mu àndaale bu muy juddu am na ñu ko xam mais ñi ko xam bëriwul Senghor dafa àndaale ngemb bu muy juddu wallahi azim man maa ko wax te dëgg la ay mbokk Senghor yu xam loolu buñ ma dégloo dinañ ne kii fan la jëlee boobu information parce que dañ ko dañ koy nëbb Senghor dafa am lu mu àndaale bu muy juddu du nitu neen euh, sengoor na ko monsieur le ministre je suis désolé mais il faut ma récupérer ko yóbbu ko président parce que kii sentir naa ko trop après ci la ko ministre bi woo wax Bruno Diatta que dorénavant da ngay dem palais ci wetu président de la république nga jàppale ko foofu ci liggéey bi donc mu ñëw palais ci semaine boobu la ñëw palais bi mu ñëwee palais Euh, chef de protocole palais à l'époque mu ngi tudd Cheikh Lay ñu jël ko boole ko ak Bruno Bruno nekk ci wetam mu koy formé bi mu koy formé Senghor di ko surveiller rapidement même pas deux mois Senghor écarté Cheikh Lay ko ambassadeur bi mu ko nommé ambassadeur Euh, république fédérale d'Allemagne en 1979 ñu affecté foofu Cheikh Sey Cheikh Sey moo nekkoon chef de protocole palais euh, Bruno remplacé ko bi ko Bruno remplacé depuis 1979 ba tey musul génn palais lu mot huit de temps musul def këram lu wet huit de temps bu demee sangu lekk naan ñibbisi na war ñibbisi waan na gis njabootam rapidement ñëwaat na léegi man moom lay wax mooy suñu cinquième président parce que vivre na ak président yëpp bu amul woon discrétion bu mënul woon liggéeyam bu nekk nekkoon nit ku wóor kon président bu ñëw rek danga koy bàyyi mu dem mais président yëpp ko maintenir te service de protocole président au monde bi yëpp d'accord nañ ni que il est un des donc maa ngi jaale Euh, Bruno Diatta maa ngi koy jaale njabootam di ko jaale Sénégal yëpp nag euh, vraiment ñu ngi koy jaale ñu ngi koy jaale bu baax a baax a baax a baax baax c'est une pert wax dëgg fa yàlla waaye nag àdduna moo mel noonu fii du kër du dëkkuwaay ñun ñëpp dañ fiy jóge yàlla na yéex yàlla na rafet euh, mais daal dañ ci bàyyi xal ni bés a ngi ñëw ñun ñëpp dañuy dem maintenant bu ñu jógee ci loolu damay dugg ak yéen ci yeneeni mbir mais balaa boobu damay nuyu ñeen ñi may seetaan ñi nga xamante ni aussi ñu ngi may seetaan discrètement ak ñi ma war a seetaan ci kanam di nuyu senegala yépp yaa xam ngay joola di séeréer di pël di tukulóor wala yaa xam loo mënta doon yaa xam tariixa boo bokk yaa xam diine boo bokk mais bu dee sénégalais nga rek intéressé nga ma di leen ñaanal gudd fan wér gu ak sutura euh, bu ma jógee ci loolu damay gërëm sama guide politique di ko nuyu di ko siyaar di ko ñaanal muy SOS SOS mooy solution Ousmane Sonko man SOS laa koy woowee <laughs> parce que SOS ba xoolee dafa ñëw pour sauver Sénégal daf ñuy sauver bu neexee yàlla léegi moom jub rek lañu xam ci moom jullite na euh, bëgg na nit dëggu na jub na njubel bi dama koy fàttali gars yi parce que ku nekk inspecteur des impôts et domaines inspecteur principal kooku nekk ci poste boo xamante ni mun nga am lu ne mais ku la corrompre rek nga bañ il faut aussi nit ñi ku ni Ousmane Sonko bi muy ñëw impôts et impôt domaine employé yi amuñu woon euh, ay syndicaliste léegi njubam ak maandoom ak ni mu mën ay nit ak nu mu mën a dégloo aussi nit moo tax ku fa mësaan am problème ci moom ngay dem mu conseiller la calmer la dem ki nga am ak problème wax ak moom jubóole leen wala regle ko ci loolu la créer syndicat wu des travailleurs euh, bu impôt yu domaine moom moo ko créer moom moo njëkk a nekk secrétaire général euh, syndicat boobu euh, ba yàlla def nu fay joge am na ku ma ku jege Ousmane Sonko koo xamante ne rakk jabaram la mu ne ma waa ji ni mu maandoo sax sénégalais yi xamuñu ko dafa yéeme dafa nekk nit ku baax mu ne ma Ousmane Sonko bi muy doog a pare jàng di doog a commencé liggéey dafa luwe woon kër goroom cest diir dire jabaram da ko luwe woon benn appartement bi mu fa dëkkee papay jabar ji ne ko comme sama doom nga te sama doom nga denc te dama laa considéré comme sama doom yow loo joxe rek baax na Ousmane Sonko ne ko déedéet dama bëgg kat nga wax ma rek prix bi nga koy loué ñu dëkk fa papay jabar ji bañ mais comme moom aussi chaque mois da daan dem di defal teraanga papay jabar ji cest di fa yóbbu ay ay ration ak yooyu xam naa papay jabar ji loolu aussi ak relation yu ñu am gêné ko ba munul munul munu koo laaj prix loise Ousmane Sonko tamit affaire boobu da ko gêné ba mujj gi dafa génn kër gi dem loué feneen quoi après continuer di jàppale papay jabar ji donc Euh, pour wana leen ni rek que nit bu bien la xam nga dafa am euh, lu xew fan yi Ziguinchor kër yaayu Ousmane Sonko ñu ne dafa am ay gendarme yu fa dem nangu ay fiches de parrainage yu ñu dencoon foofu euh, coow li bari na trop nag gars yi xamuñu ni ay gendarme lañ wala ay ñu ñëwoon yore ay badge gendarme am na ci sa benn frère ku ne benn gendarme benn frère bu génn def benn déclaration man maa ngi ciy investiguer amaguma ci lu ma leer mais am na lu ma ci jot a xam incha allah bu investigation bi motee rek dinaa ñëw ñu ñu ñu waxtaan ci comme ni ma ko daan faral di defee rek parce que lépp lu may wax damay bëgg mu leer bu ñu jógee ci loolu am na ay quelques invité surprises yu war a ñëw tey mais bala loolu dañuy dellu ci mbiru Amadou Sall Amadou Sall muy doomu président de la république ñu bëri dañoo ne mooy taawam mais du taawam mag Sall am na beneen doom avant muy takk Marème fay Sall bi mu nekkee étudiant la ko am mu ngi ko am benn étudiante boo xamante ni xale bi bi affaire bi bi mu ko dalee ci la ko ay parent rawala yóbbu ko France doom boobu noonu doom bu góor la mu ngi France mais comme moom deful dara du ma tudd turam du ma wax adresse am du ma wax ku yaayam parce que aussi àdduna dafa gudd tànk te en réalité papam la amal affaire pa moom Amadou Sall tamit bu duggul woon ci mbir yi tamit du ma doon tudd turam mais comme dafa dugg ci bagage yi di def ay conneries damooy tudd turam force am na ay copains am yoo xamante ni ay xarit na yu nekk Brooklyn am na ci ñoom ñoo xam jox nañ ma ay information dinaa ko partager ak yéen léegi biir assemblée national dafa am deal bu mag bu fa nekk deal boobu ci ko gérer mu ngi tudd jayte jayte euh, c'est un ami d'enfance de Moustapha Niass dañoo yàgg ñoom ñaar Diayte moom mooy gérer commission comptabilité et contrôle avec la complicité d'un parent de Moustapha Niass am na ñu naan sax cousin am la mu ngi tudd Khoureysi Niass Khoureysi Niass est un militant actif de l'AFP AFP mooy parti wu Moustapha Niass ñu ngi ko élire député ci liste Benno Bokk Yaakaar moom moo yore poste boobu depuis bi ñu renouvelle bureau bu bees bi xam nga ñoom post boobu am na ko naan Fatou Diouf moo fa nekkoon après Fatou Diouf Thierno Bocoum moo ko remplacé léegi ñoom dañ daan yóbbu oto député yi ci ay garage ah garage su assemblée nationale ak yeneen garage ah africaine de l'automobile et tout ça bu ñu waree réparer ay auto député yi mooy parkinu assemblée nationale léegi comme Amadou Sall dafa jënd benn entreprise bu naan expert auto expert auto mu ngi ñaari lieu lañu am benn bi mu ngi nekk ci Lamine Gueye ci Lamine Gueye bi la nekk juste à côté euh, immeuble si lay gisee mooy immeuble bu am poos yi nii te mu nekk te mu tiim station bi noonu rek euh, je pense que angle Lamine Gueye ak Faidherbe bi la fi banque euh, société générale bi nekk noonu ci angle bi ci ginnaaw station foofu la immeuble bi nekk donc expert auto ñu ngi foofu noonu rek si suuf société boobu noonu ñu ngi ko créé le 12 décembre 2012 ki ko créé mu ngi tudd Éric Ghislain Clara moom moo nekkoon directeur général bi mais Éric Ghislain Clara daf ko jaay Amadou Sall bi mu ko jaayee Amadou Sall mu jóge ci entreprise bi ñu embauché ko africaine de l'automobile secrétaire personnel mu ngi tudd madame Badiane bàyyi ma wax madame Badiane rek te ba wax turam ak yooyu parce que aussi liggéeyam rek lay def bokkul ci deal bi léegi avec la complicité de jayte bi nekk assemblée nationale ak neveu Moustapha Niass Khoureysi Niass ñoom ñooy jël oto yi bu paanee ak bu ñu paanul yëpp yóbbu ko ci gaaraasu Amadou Sall comme ça ñu réparer oto yi foofu benn feu benn feu rek. boo xamante ni tojul dara daru ko ñu war ko changer un million quatre cent mille un million cinq cent mille la waa di fay te loolu ci budget de fonctionnement wu assemblée nationale lay génnee c'est-à-dire xaalisu sénégalais yi la donc Amadou Sall dina recevoir plus de un milliard et quelque par mois ci affaire réparation rek rek yoo xamante ni réparation sax amu fa yoon léegi am na benn salon d'exposition boo xamante ni foofu lay exposer auto de luxe yi di ko jaay ministre yi ak borom xaalis yi Sénégal euh, mu ngi nekk ci route des Almadies mu ngi nekk juste en face euh, village u euh, événement boobu noonu moom mooy festival des arts nègres bi fi mu amoon noonu terrain boobu ñu naan Ablaye Wade moom moo ko moom foofu la beneen bi nekk donc Amadou Sall maa ngi koy invité mu génn ci suñuy mbir wala rek ma wax yeneen mbir pour preuve euh, Amadou Sall embarqué na cent voitures yu si bëri ay pick-up Toyota Corolla la yu bees yi mu ngi ko jëndee Dubaï ci bato bi mu ko def dina yegg si mercredi bi lay yëg ci Sénégal bato bi oto yi nekk mercredi lay yegg ci Dakar dans la nuit c'est-à-dire euh, euh le 26 le 26 septembre donc douanier yi ak corps de yi bu fekkee ba ngeen lu ngeen jàpp rek ah, jox naa leen ay firndeel yu leere leere leere leer ci bateau compagnie bu muy ñëwee bateau bi mu ngi tudd Al Mahri Cargo euh, moom mu ngi liggéey ak benn booy bu tudd Amari Kume booy bi mu ngi dëkk cité assemblée aussi la dëkk Mermoz la juddoo première porte yaayam ndey Maram Gueye la tudd mooy booy yooyu noonu accidenté woon ci oto bi ba mu am benn moor ñoom ñoo sàccoon seen ooru tànta ba ñu tëj leen booy bi sa papam policier la buy liggéey aéroport mais dafa retraité ah, papam duma tudd turam parce que nit ku baax la ci ñi ko xam loolu la ñu wax léegi euh, bu loolu weesoo damay dugg ci yeneeni mbir avant may dugal sama invité yi mais may leen ma tuuti rekk ma ñëw ñu yeggali waxtaan bi Aliou Sall fu mu kontam bi gën a duuf mu ngi am 800 milliards CFA compte bi mu ngi nekk Îles Caïman actuellement mu ngi wut ay prête mu ngi wut ay nit yoo xamante ni ñoom la nekk di dénk xaalisam ki ci gën a siw El Hadj la tudd c'est un Gambien bu nekk New York boobu tamit dinaa ci dellu si wat comme sa ñu gën ci waxtaan euh, une minute ma ñëw ñu yeggali mbir mi parce que tey dinañu waxtaane lu bare bare bu neexee yàlla ah soxna si Fatou maa ngi lay nuyu wey ana Alfousseynou ak Laasana ah ci yow rek la des de boo bàyyi Ousmane Sonko ma bàyyi la boo continuer say conneries ba wax la lu mësta dégg bi nga juddoo ba léegi say dossier moom maa ngi ko yor rek di xaar am na ko ñuy wax aussi Moustapha Cissé Lo le fou di village temps yi dégg naa muy attaque Ousmane Sonko kooku moom wérul wérul donc wérul moom kenn du ko tontu sax mais moom tamit am naa ay bagage ci moom ci moom la des rek bu bëggee ñu wax bu bëggee ñu bàyyi mais lépp mu ngi dépendre rek ci accusation yu muy teg Ousmane Sonko euh, encore une fois du ma ne kenn du critiquer Ousmane Sonko mën nga ko critiquer sans problème parce que nit il faut ñu critiquer ko loolu tamit moo koy yokk sax mu gën a góorgóorlu mais di inventer di fen moom ci nit ki loolu man du ko nangu du ko seetaan dégg di aussi rappeler patriote Pastef yi ngeen di argumenté intellectuellement lu leen nit wax lu leen nit attaqué bu leen ko tontu ci ay saaga tontu leen ko intellectuellement ngeen waxtaan loolu sax mën na tax ba ñi xamul woon Ousmane Sonko xam ko loolu mën na tax ba ñi ko bëggul woon bëgg ko donc lépp ci yéen la dépendre lépp ci militant yi la dépendre dégg ngeen Abdoulaye Sylla moom it wax naa ci moom sama live bi passé euh, maa ngi yor ay bagages yu yéeme ci moom mais moom comme mbir mi yëpp ci moom la concentré wu moom damay xaar rek damay xaar rek maa ngi xaar tuuti rek pour jox leen photom vidéo mag léppam léppam léppam bu mu juddoo ba léegi léppam kooku ni ma ko xamee xamee wu ko sax samay propre mbokk ak samay propre xare dama ko xam-xam yu yéeme yéeme yéeme yéeme d'ailleurs ba démb fu mu nekkoon ci guddi xam naa ko euh, bi ma commencé wax ci moom l'autre fois seen bureau Ecotrans yi nekkoon ci immeuble ndaw soosu noonu dañ ko transféré tuxu nañ fi ñu tuxu démb lañ ma wax fan la mais je le garde pour moi pour l'instant dégg ngeen parce que kooku tamit xaalis bi Marème Faye Sall yëpp sàcc mu ngi ci moom aussi ñu dugg ci beneen mbir xam nga université Dakar dañ koo jaay université Dakar dañ koo jaay benn promoteur français loolu moo tax Macky sàll di précipité wu di tabax université Diamniadio université Dakar lañ bëgg tuxal dañu bëgg a tuxal étudiants yi foofu dinañ tabax aussi beneen université bu bees du yàgg dara di ngeen dégg université bu bees bu ñu tabax entre Thiaroye Pikine ak Guédiawaye c'est-à-dire sûrement ci biir camp militaire Thiaroye bi lañ koy def man maa leen ko wax bàyyi leen ci xel léegi léegi di ngeen gis ñu commencé chantier yi euh, loolu aussi bëgg naa Macky sàll tontu ci. loolu aussi bëgg naa suñu député yi euh, wax ci comme suñu journaliste konaar yooyu nga xamante ni Macky Sall daf leen a jënd kenn ñemewu ci wax dinaa ci wax force dama ci wax wax force force damay tëdd suñu borom dama won force ma yeewu force di wax force quand di dis force ñu bëri dañ man doo wax incha allah ma leen incha moo jiitu lépp force damay wax wax force laa la wax voilà léegi xam nga fan yi dafa am ku ñuy wax sëriñ Pape Malick Sy porte xalif porte parole di xalif général di Tidiane euh, xam nga sëriñ Pape Malick Sy moom porte parole xalif bi la xam nga dama leen waxoon duma wax ci xalif yi parce que dama leen jox cër parce que ay kilifa lañ ay régulateur lañ ñooñu bëgguma di wax ci ñoom mais wax naa leen fi tamit sëriñ bu fi politique force ñu wax ci yow doomu sëriñ bu fi politique dañuy wax force ci yow fors dañuy wax man mii di wax ak yéen doomu sëriñ la mais su ma politiquee ngeen wax ci man force lu leen neex ngeen wax dégg ngeen Pape Malick moom bu nekkee mooy la porte-parole di xalif général di Tijaan bu waxee rek peut-être parole la euh, bu mu porté c'est-à-dire dañ ko ko waxloo léegi dama bëgg nit ñi xam que Pape Malick Sy avant muy nekk xalif wala muy nekk sëriñ wala muy nekk porte-parole nit kese la d'abord nit dong dong la sénégalais tamit la am na droit parrainer ku ko neex am na droit votel ku ko neex mais position mayu ko muy wax na nit ñi votal diw waroon na ko rus walla mu jomb ko ak respect bi may am ci moom yëpp xam na ay ñoom umu si Habib ñoom ñëpp ñoom mu lay si samay xarit lañ samay dëkkandoo lañ seen yaay soxna si Camara euh, nekk nit ku baax yal na yàlla yokk laram xam naa leen mais def na lu ñaaw man Ousmane Ba maa ko wax waru ko woon def te dama bëgg ñu xam ni que génération boobu doon topp ay ndigal génération boobu noonu ak génération bi bokkul nañ ci bàyyi xel am na ay kilifa yoo xamante ni l'islam rek lañ liggéeyal yenente bi rekk lañ fi taxaw woon di défendre sunna maintenant ñoo ñu jóge fi seen doom yi ñëw bi seen doom yi ñëwee ñoo ñu topp seeni tànk papa taxaw fi taxawwaay bu rafet taxawal fi diine lislaam taxawal fi senegaal moo tax ñëpp jooy maam Abdou Aziz Sy Dabakh ñëpp a jooy Serigne Saliou Mbacké parce dañoo nekkoon xoolal xoolal xoolal maam Abdou bi mu génnee àdduna léegi ça fait de vingt deux ans mais xoolal jouru anniversaire u desem keroog sur Facebook ñëpp a jooy amul murit amul amul tijaan ñëpp a koy jooy mais lan moo ko ko may parce que dëggu gi mu dëggu woon li mu neutre woon ni mu bëggee woon Sénégal bu gisaan ay mbir yuy bon yuy ñëw si senegal sax danaan na ñëpp def saraxu nàngam na ñëpp jàng alxuraan na ñëpp takk morso yu xonk na ñëpp takk lii kilifa noonu ngay def mais kilifa yoo xamante ni seen poos rek alal rek xaalis rek àdduna rek am na si ñoom sa ñoo xam dañuy xeesal léegi bi fi ñoo ñu jógee seen sët yi ñoo commencé toog mais seen sët yi am na si ñoo xamante ni Euh, bi ñuy nekk jeune dañoo def ay tooxi dooni am na si ñoo xam dañu biiral ñii dañ doon naan sàngara ñii di def ay affaire yu garaaw ñii ñu filmer leen ñii ñu photo leen tey ñooñu du ñoom ñooñu mën a wax lu ñu war a def parce que nawloo wu ñu leen ñu su bëri ci ñoom nawloo wu ñu leen donc ñu def attention bu baax a baax a baax a baax Sénégal fu mu toll nii ku ci waxul jàmm ku ci taxawul askan bi ku yërëmul askan bi merito woo sa nekk sénégalais amul yaa xam nag foo dëkk ak ci famille boo bokk faala wuñ la a tellement on parle euh, pour lu jëmale suñu dëkk kanam pour ñu développer mais ñooñu nga xamante ni ñu si bëri musuñu liggéey ñu su bëri Sénégal moo leen mës a yor état bi moo leen di neexal di leen jox xaalis di may seen doomi bourse c'est sûr que duñu xam metti waayu dund bi ñuy yenn sénégalais yi wala la majorité des sénégalais di dund donc ñoom nañ lekk seen xaalis rek seen xaalis riba boobu nañ ko lekk te bàyyi ñu quoi bu ñu sonal man loolu laa am lu ma ci wax comprendre nga excusez-moi voilà c'est ça léegi aussi bu ñuy wax ne Macky sàll li mu def Tiwaawoon moo tax patati patata Abdoulaye Wade li mu def Tiwaawoon Macky Sall def ko Tiwaawoon tali bi relais yi Tiwaawoon ba ba ba Touba kan moo ko defar du Abdoulaye Wade Abdoulaye lu baax Touba moo ko fa defar te bu mu ñu bëggee fontoo dañ ko fay jëlee te pourtant dañ koo bëgg suñu biir xol comprend ngeen donc du Pape Malick Sy moo ñuy wax lu ñu war a def loolu man usman Ba man maa ko wax voilà waaw kay loolu daal bëggoon naa ko wax daal léegi Macky sàll dafa nekk di préparer benn deal moom ak Abdoulaye Wade li may waaj a wax nii nag lu yéeme la ñu si bëri dinañ ma ci mere surtout ñi nga xam dañu ànd ak Abdoulaye Wade mais man ku ma xam-xam na ne Abdoulaye Wade suma xarit la ku moom bëgg naa ko lool mais man instant bi je m'en fous xarit àndandoo ou whatever Sénégal first Sénégal first Sénégal d'abord Sénégal d'abord après leneen di doog a ñëw comprendre ngeen parce que y'en a marre de voir ay jeunes yu jàng ba pare war a liggéey mënuñoo liggéey y'en a marre di gis ay nit di décédé parce que amul ambulance bu leen jël si pour yóbbu leen ñu dem faju yaanaa maar di gis ay jigéen di dem hôpital pour def radiothérapie ci seen cancer yi ñu am buñ demee fekk machine ba pann yaanaa maar suñu doom yi di jàng ci ay abzi ci ay abri provisoire c'est-à-dire ci ay néegu euh, ñax yoo xam bu tawee sax duñu jàngi parce que affaire yi day senn yaanaa maar de tout ça yaanaa maar ñu jël bien yépp am ñuñ ko jox bàyyi majorité bi yanaa maar doomu ministre di lekk suñu xaalis nekk Europe di roué ay Ferrari di dem ay Las Vegas di foo yanaa maar de ça dañoo sonn ci loolu dañ sonn ci loolu dafa war a jeex dafay jeex loolu nag ñun rek ñun ñoo ko war a jeexal surtout ñun jeunes yi génération bu bees bi ñun ñoo ko war a jeexal affaire naa fekk moo war a jeex bàyyi leen di votel nit parce que yéen bokk xeet wala yéen a bokk tarixa wala yéen wala da nga fan wala lii nit da nga koy votal pour ay conviction yu leer cest à da ngay xam ni kii nit ku dëgg la ku ku jub la ku bëgg liggéey la koo xamante bu ñu ko joxee réew mi dina liggéey nit da nga koy votal ngir loolu bu ñu doon def noonu léegi léegi Sénégal développé comprendre ngeen loolu man foofu laay waxe man ak la may wax yépp xanaa suma pare parane woon beneen candidat xanaa ngeen tiit kon lu tax ma parane Ousmane Sonko il est l'unique personne l'unique boog l'unique bu ma xam ci cent personnes yu posé seen candidature yëpp boo xamante ni amul benn daram benn dara lu takk ci moom lu négatif gars yi jaar nañ ko fu nekk mënuñoo gis dara lu takk ci moom waaw kooku nag duñ ko jox mu liggéey ñun ñëpp xam nañ Sénégal politiciens yi fi nekk yëpp am parti ñoo créé seen parti ñoo génnee seen xaalis créé seen parti ñoom ñooy financé parti bi loolu moo dal PDS Abdoulaye Wade moom moom parti moom moo ko créé moo koy financé comprendre nga moo tax lu ko neex moo fay am yeneen parti yëpp looloo fa am mais Pastef Ousmane Sonko créer wu ko Ousmane Sonko créé wu ko Pastef ay jeunes comme man comme yéen ñoo ko créé dem wër leader bu leen jiite ñu koy wër di ko wër pendant des années ñu koy wër ba ñu tombé ci Ousmane Sonko ñu ñëw na ko grand kat ñun ay jeunes lañ lañ yu conscient yoo xamante ni vraiment il est temps dëkk bi développé Ousmane Sonko ne leen sa waay man daal sa <laughs> m'intéresse pas ça m'intéresse pas quoi mais nag lu ma leen mën a lu ma leen mën a jàppale dinaa ko def gars yi wax dem ñëwaat quatre fois ñu ngi ñëw ci moom à la fin mu ne d'accord on va voir comment on peut travailler ensemble mais lépp ci dëgg lépp ci dëgg mu ne leen lu amul dëgg lu amul yàlla bokkuma gars na ko amul problème donc tey Ousmane Sonko congrès moo ko fal euh, Pastef dañoo daje fal ko mu gérer donc tey bés bu jëloon nguur gi lu muy njëkk a def mooy démissionner en tant que secrétaire général u Pastef dafay démissionner loolu moom moo ko wax donc bu boobaa tey même bu gañee ñu war a dem mu def benn mandat ñu war a dem deuxième mandat ba tey waa Pastef ñooy décider ndax Ousmane Sonko moo leen di représenté waat deuxième mandat wala keneen la ñuy fal waaw ah, parti bu mel noonu parti bu am ay nit yu conscient wi noonu parti bu am ay jeunes yu conscient wi noonu yu jubee noonu non ku leen jàppalewul dinga ma jaaxal trop billaay wallaay man en un moment dafa mel ni sénégalais yu ñoo buggul avancer quoi dafa mel ni li fi nekk depuis plus de soixante ans daf leen neex quoi mais prenons notre destin en ah, main s'il ngir yàlla ak yenente bi kaa ñu jëlee fi politiciens yi fi nekkoon yëpp nga xam ne presque ñoom ñëpp ñoo yem kaa leen ñu jëlee leen fi andi lu bees jox ko benn possibilité benn sens su cinq ans rek ñu xool wallahi du ngeen ko rëccu léegi buñ jógee ci loolu Macky sàll dafa rencontré dafa woo Idrissa Seck xam nga li may wax nii da ngeen may déglu bu baax ma expliquer leen Macky Sall renseignements généraux yi dañoo def seen sondage bi ñu defee seen sondage ñu xamal ko ni sa popularité dafa wàcc te tu as vingt et pour cent nga am vingt et un pour cent sénégalais yi ñoo ànd ak yow ñi si des ñëpp dañ laa weddi mu am beneen pôle bu defaat c'est-à-dire beneen sondage boo xamante ni benn cabinet bu nekk France moo ko def avec euh, la collaboration de certains journalistes ak yenn euh, experts yu nekk au Sénégal ils ont vu ñoom ne Macky Sall vingt deux pour cent la am RG yi gis vingt ñoom ñu gis vingt deux pour cent xaw ma nag ci yan mécanisme lañ basé wu pour mën a xam centage boobu biñ ko joxee information bi ak yeneen information yu mu am moom il a compris que pare na il a compris que ni sénégalais yi weddi nañ ko mais xam nga loolu du ko wax publiquement donc mu moo tax muy continuer liggéeyam moo tax ñuy continuer seen système de propagande di continuer seen système de comme avec seen com boobu El Hadj Hamidou Kassé nga xamante ni c'est un excellent philosophe un excellent journaliste qui a vendu son âme koo xamante ni xawma lan moo ko dal ba mu devenir con comme ni mu demee nii actuellement euh, parce que ay conneries rek lay wax bi loolu amee muy préparer pour dem Macky pare na pour dem ok mais dafa bëgg sécuriser départ am léegi ñi ko entouré ñi ko xam ñi xam ni mag yi dafa bëgg a dem bariwul mooy comme ni Abdou Diouf defoon ñoom Tanor Dieng rek parce que Tanor mu ngi doon xaar Abdou Diouf sàcc élection yi comme ça préparer ko moom mu remplacer ko mais daf leen nax dem dem dem bu nice ok mais Abdou Diouf boobu tamit imbécile la bu mag parce que boo xoolee physiquement dem na mais psychologie mentalement dafa resté parce que moom mooy mentoru euh, Macky Sall connerie bu Macky Sall def Abdou Diouf moo ko ko defloo ak Ousmane Tanor Dieng xam nga Ousmane Tanor Dieng temps yi dafa dem France pour rencontrer François Hollande François Hollande bañ ko recevoir parce que da koo mere ci limu ci li ñu tëj Khalifa Sall te defu ci dara parce que Ousmane Tanor Dieng moo tax ñu tëj Khalifa Sall c'est jaloux la bu mag moom moo conseillé Macky pour ñu tëj Khalifa Sall parce que xam na ni parti PS ah xam na ni ci loxo Khalifa Sall lay mujjee ci loxo Ali Khalifa Sall la war a tegu mu bañ mu bañ a libérer Pez loolu moo tax ñu tëj ko accusé ko tëj ko mais li may wax rek Khalifa Sall supp kànja la ku ci lekk di nga takk moo tax ñoom ñëpp fu mu toll ni ñu ngi commencé amay ay problème léegi yi dafa woo Idrissa Seck bi mu ko woowee ñoom ñaar ñu tëju biir pale secrètement ci néeg ci bureau Macky Sall mu ne ko Idi mu ko waaw Mara la koy woowe quoi mu ne ko Mara mu ko waaw mu ne ko baal ma àq Mara ne ko baal naa la àq Mara ne Macky baal ma àq Macky ne ko baal naa la àq ñu baalante àq ñoom ñaar biñ baalante àq mu ne ko Mara mu ne ko waaw mu ne ko dama bëgg famille libérale bi retrouver wu te loolu yow yaa mu ci mën a jàppale dama bëgg ñun ñëpp ñu dellu siwaat jàppalante yéen jàppale ma ma am deuxième mandat ah euh, comme ça après ma jox leen dëkk bi dem maraane ko loolu dina xaw a difficile ma ne ko même loolu aussi bu mënul nekk dama bëgg euh, yow ak Karim ngeen booloo ngeen assurel ma sama départ comme ça du ngeen ma pour poursuivre du ngeen laal samay bien comme ça man ma dem Mara ne ko yow danga ma jiiñ ni dama sàcc ay milliards ci sànci ci yow yaa ma en deux mille euh, deux yow yaa ma ko jiiñ yaa tax Abdoulaye Wade tëj ma yow yaa jiiñ Karim ne dafa sàcc ay milliards nga tëj ko ba exilé exilé ko tey nga bëgg a ñëwaat nga ne ñun ñaar nañ booloo nga jox ñu pouvoir bi yow nga dem maaraan ne ko sénégalais yi ne ko sénégalais yu dofuñu bon loolu duma ko accepter comprendre nga mais avant loolu deal bi mooy mag yi dafa dem rencontrer Ablaye Wade France Macky bi mu demee France pour rencontrer Ablaye Wade mu ne Ablaye Wade dama bëgg Karim ñibbisi ma jox ko pouvoir bi mais ngeen sécuriser ma sama départ du ngeen ma topp Ablaye Wade na ko loolu mën na nekk mais il faut ma concerter wu ak Karim ñu waxtaan ñu trouver ci ay solution comprendre nga xam nga du wax waaw du wax déet mag la xam na li Macky di joué mu ne mu bàyyi ko ci biir Macky français yi dañ koo teg pression fu mu toll nii parce que français yi ay naafeq lañ ñoom ki nga xamante ni moom la population bi gën a àndal moom la ñuy jàppale teg ko ci ci ci ci pour mu toog ci nguur gi pour mu défendre intérêt wu français yi parce que français yi xam nañ ni Macky il il plus populaire au Sénégal sénégalais yi dañoo doyal ci moom léegi bi loolu amee Macky deal bi mooy Karim ñibbisi xam nga waxoon naa leen Karim du ñibbisi mais effectivement d'après deal yi fan yi la am Karim dina ñibbisi di ngeen ko gis mois de novembre di ngeen ko gis Sénégal dafa bëgg Karim ñëw parce que jox nañ ko titre de voyage ba pare maintenant il est autorisé pour mu atterrir barke démb la jot titre de voyage pour mu atterrir pour seen pour mu wàcc Dakar léegi deal bi mooy bu Karim ñëwee dinañ ko arrêté mais lépp faux ko ay deal la buñ ko arrêté tëj ko mais dañoo fay ay nervi te nervi yi ñu si bokk ñëpp yor naa seen liste ñi nga xam jot nañ leen consulter ñu su bëri xaw ma ñëpp mais am na suñ su bëri xam naa leen ay mbër lañ entre Pikine ak Guédiawaye dëkk ak yooyu danaa wax ñan la ñu yëngal xeex ak policiers yi dëkk bi tàq ñu taal fii taal fii taal fii dëkk bi tàq mais loolu bu élection yi di waaj a jege lañ ko bëgg a def soit novembre soit ay booru janvier comme ça dëkk bi jaxasoo ñu pousse élection yi pousse élection yi ba booru décembre deux mille dix-neuf fekk Macky prépare rawale li mu bëgg a rawale li jënt lu mu bëgg a li jënt yëpp comme ça popularité Karim yéeg bu popularité Karim yéegee parce que sénégalais yi dañ bëgguñu ko ñuy noot bu buñ ko nootee rek gars yi dañuy am sympathie wu dañuy gën a am sympathie wu Karim bu popularité Karim yéegee gars yi dem élection Karim jël pouvoir bi loolu la Macky di nekk di préparer lan moo tax muy def loolu parce que doole Ousmane Sonko la nekk di bëgg a wàññi parce que ñoom ñëpp Ousmane Sonko daf leen a bett pour ñoom waaju ji du am dara pour ñoom waa ji sénégalais yi xamuñu ko pour ñoom waa ji sénégalais yi bëgguñu ko daf leen a bett fu mu toon daf leen a jaaxal sax ñu ngi def tout pour assassiner ko wala pour pour pour tëj ko wala pour andil ko problème donc encore une fois na sécurité Ousmane Sonko ñu yore sécurité mu nañ def très attention. Ousmane Sonko entourage am nañ xool kan moo koy jege ak ku ko jege na waa këram xool luñ koy toggal li muy lekk kuy nekk ci waañ bi kan mooy togg ak kan moo fa toog këpp ku nekkul soxnaam ku jegewul famille bu trop ku ñu wóolu trop bu mu toggal Ousmane Sonko mu lekk man maa leen ko wax man Ousmane baa maa ko wax na jabaram dugg waañ gérer lépp buy dem marché bu mu dem moom rek nañ ko accompagner fu cabaram ak doomam di génn dañ leen accompagner parce que gars yi fu mu toll ñu ngi koy fexal parce que français yi ñu ngi bëgg a jàppale Ousmane Sonko pour mu jël nguur gi mais Ousmane Sonko nanguwul français yi melew ci affaire u Sénégal usman Sonko nee na leen c'est le peuple sénégalais ki décide sénégalais yi ñooy décider mais bés bu jëlee nguur bi ah c'est vrai que français yi américains yeeg chinois yi ñun ñëpp lañ soxla on va travailler avec tout le monde mais contrat bu ñu signé woon bu Macky signé woon dinañ ko renégocier waat pour Séné pour def ci pour pour pour intérêt Sénégal gën ci bopp gën ci bëri comprendre ngeen parce que pétrole bi yëpp Macky jaay na ko ana xaalis boobu ana xaalisu pétrole bi man loolu laay laaj nañ ñu wax fan la xaalisu pétrole bi nekk nañ wax nañ ñu publier yi nañ ñu wax ana xaalisu pétrole bi pétrole du yëfu caaxaan papa dëkk yi ko am yëpp dañoo développé tax ñu am pétrole jaay ko depuis dix ans ñu jaay pétrole bi ba pare xaalisu pétrole bi anamu man loolu laay laaj pétrole bi bato yaa ngi koy jël di ko di ko di muucu di ko yóbbu ci dëkk tubaab bi mais ana pétrole bi papa nañ ñuy wax bi fu mu nekk léegi loolu Ousmane Sonko bëgg a lijjanti gars yi nag di ko jéem a bloqué parce que xam nañ ni bés bu lim ci xam moo bari bos bu toogee billaahi wal kitaabi laa la wax ni ah. politiciens yu bëri kilifa yu bëri ñu ngi dugg xalwa pour Ousmane Sonko bañ a gagné élection yi parce que bu ko gagné ñoom ñëpp prison lañ jëm man maa leen ko wax. waaj ji da ko gis mu kuul nii noppi ngeen foog naa yambar la du yambar rek daa ah, tey rek te tey dafa baax ci doomu aadama. léegi loolu mooy dil bi donc sa Seck dafa rejeté euh, proposition wu Macky Sall boobu. Euh... Isaac daf na ko euh, les Sénégalais n'ont plus confiance en toi et moi Idrissa Seck je préserve mon image il l'a dit il a aussi posé la question à Sévar et Abdoulaye Wade moo koy def Abdoulaye Wade noo koy def il dit moo wax Macky Abdoulaye Wade noo koy def Macky lui répond Wade sama papa la te mu musuñu réeroo benn yoon xam nga loolu waxu naa fekk la moo fi toroxal Abdoulaye Wade te Abdoulaye Wade moo ko def li mu nekk. comprendre ngeen donc Karim dina ñibbi si mois de novembre te papam lay àndal buy ñëw man maa leen ko wax bàyyi leen ci xel bu baax te dina am ay trouble yu bari te essence dafay manqué bu jour yooyu Karim di wàcc Sénégal essence day manqué bàyyi leen ci xel bu baax man Ousmane Ba maa ko wax voilà. Euh, xam nga loolu moo tax Macky Sall jéem a dajale famille libéral bi parce que comme dafa def proposition boobu ab lay Ablaye ab Ablaye Wade di ko xaarloo léegi mu ne damay tas PDS pour wàññi doole yi Ablaye Wade loolu moo tax mu dem corrompre membre PDS yëpp ci loolu la ay Modou Diagne Fada rejoindre Macky ci ay loolu la ay Farba Senghor rejoindre Macky ci loolu la ay la ay euh, Pape Samba Mboup rejoindre Macky Samuel Sarr temps dañ koo xot fii parce que benn dilu neuf milliards bu gars yi créé am ci moom Macky fu mu toll nii da koo xot mais Samuel borom fit la faalewul Macky mais buñ ko sonalee trop am na nu muy demee mu rejoindre Macky Aïda Mbodj fan yi rejoindre na Macky parce que Bambey la bëgg a livrer euh, Macky euh, l'autre Abdoulaye Baldé Macky lay liggéeyal di ngeen gis fan yi dina am ñu bëri ñu bokk ci parti Abdoulaye Baldé ñu démissionné di rejoindre Macky ndànk-ndànk lépp ay dil la mais dil bu ñu fi teg man Ousmane Ba dinaa ko teggi man Ousmane Ba lépp fii laay toog lépp di fi fekk incha allah ma koy séddoo ak sénégalais yi parce que sénégalais yi il mérite ñu xam xam nga. Euh, sénégalais yi dañoo war a xam parce que journaliste yi leen waroon xamal ñoom ñëpp dañ leen a léegi ñun ñi nga xam duñu ay journaliste demuñu benn école de journalisme nga xam Sénégal rek moo ñu ñor ñun ñoo ñëw di séddoo ak yéen yi information comprendre ngeen pour ngeen xam makis dafa dem France pour français yi jaay ko ay arme arme yoo xamante ni kenn du ko numériser xam nga arme yi buñ ko numériser wul euh, tey buñ ko joxee police bu manifestation amee police dóor ci popu utiliser yooyu dal ci kaw population bi tey amul benn expert balistique boo xamante ni mun na investiguer ba xam ban arme moo rey nit ki ban arme ci ban bal bi ci ban arme la jógee duñ ko mën a xam bi mu demee Macron mooy visite privée boobu noonu ngeen dégg mu def juste avant muy duggal loi wu parrainage Macron dafa bañ loolu nag moo tax mu dem Chine pour chinois yi jaay ko arme bi chinois yi d'accord nañ fan yi di ngeen gis ay conteneur yu bleu lay doon yu wàcc dakaar lépp arme la ak lacrymogène ak ay bal man maa leen ko wax man Ousmane Ba maa ko wax du tey man Ousmane Ba du ma xam loolu ba pare toog ne tekk loolu duma ko nangu parce que bal yooyu dañ ko bëgg a ci kaw sénégalais yi man du ma ko nangu su ma ko nangoo naa fekk laa man Ousmane Ba du ma accepter loolu parce que ay doomu baadoolo rek lañ nar a rey buñ koy door ci kaw sénégalais yi ñoom seen doom yaa ngi ndey Europe ak États-Unis ak feneen nekk ci seen olola si suñu xaalis moo tax sénégalais yow dafa jot sama waay yeewu leen ngir yàlla ak yenente bi yeewu leen politiciens yi fi nekk ñëpp la ñuy abal dañ fi war a jóge waaw dañ fi war a jóge léegi buñ jógee ci loolu dama leen bëgg ko wax ne dafa am benn manuel d'éducation sexuelle des enfants bu dugg senegal fan mu ngi ci loxo suñu peintre boobu mooy Serigne Mbaye Thiam ministre de l'éducation manuel boobu UNESCO moo ko financé di ngeen commencé gis télé yi lu mel ni TFM ak 7TV c'est bien dit tv 7TV mooy télé boobu tudd 7TV commencé ko di ko dawal ci seen programme yi xam nga ay UNESCO ay Nations Unies organisme yooyu yëpp mooy loolu man la ma ci xam sa sa ñu ma koo wax mais jour dina ñëw dinañ ci wax incha ma wax la ñan ñoo ko créer nuñ ko créer ak lu tax ñu créer ko lan mooy seen vrai vrai liggéey dinaa ko wax xam nga ñaata organisme d'humanitaire moo am ci monde man loolu sama secteur la ci loolu laa liggéey depuis très longtemps ñaata organisme humanitaire moo am ci monde bi ñaata organisme yoo xam ne neen dañoo ñëw pour défendre lii wala pour li wala pour lii surtout d'organisme humanitaire yoo xamante ni dañoo ñëw pour xeex pauvreté ak ak famine ak yooyu ëpp nañ des centaines et des centaines ou même des milliers ils sont partout dans le monde mais ñoom luñ liggéey luñ xeex luñ faj mais tey la guerre gën a bëri ci monde bi mais tey la xiif gën a bëri ci monde bi tey la feebar gën a bëri ci monde bi tey la pauvreté gën a bëri ci monde bi damay wax ne suñu intellectuels yi xam nañ ko mais duñ ci wax parce que ay naafeq lañ ay naafeq lañ yu mag bu daan am complexe ñi jàng de yéen a gën a indi ñu si bëri ci yéen ñi may setaan te jàngu leen yéen a gën a intelligent mille fois ku jàng parce que nga jàng ba pare nekk trian wala nekk corrompu sa njàng ban njëriñ la la amal imbécile yooyu du ñu diriger dañu nax depuis des années ñoom ñëpp la ñuy futru door andi ay jeunes yu nangoo liggéey yu bëgg Sénégal billahi wal kitaab ci gouvernement Ousmane Sonko da ngeen gis jeune ministre bu am vingt cinq man maa leen ko wax parce que bu toogee lu muy njëkk a lijjanti moom mooy problème mu emploi wu jeunes yi kooku moo ko wax te da koy def jeunes yëpp ay liggéey force lu waxul maay njëkk dal ci koom fii laay ñëw toog ak gen dal ci koom ba mu tiit léegi gars yi xam ngeen éducation sexuelle baax na nga jàngal ko sa doom mais ñun Sénégal dañoo am ay réalité réalité yooyu noonu du tubaab yi ñooy ñëw pour dindi ko du ñoom ñoo ñu wax nu ñuy yaree suñuy doom tabu nag bu yéeme sujet la bu sensible mais ñun en tant que ay jullit j'aime pas de dire Sénégal dëkku jullit parce que dëkku lay la on a aussi nos voisins et nos amis chrétiens qui sont euh, des Sénégalais comme nous muy communauté bu ma respecté nag parce que kenn du leen dégg ci dara ndeysaan dafa mel ni dëkkuñu sa ci dëkk bi te fa leen dëkk ndeysaan dañoo yaru rek te maandu comprendre nga donc yal na yàlla yokk jàmm Sénégal Sénégal ñun ñëpp xam nañ ni yow ku jigéen ki yow yaay bi yaay jàngal say doom affaire awra yaay wax sa doom bu jigéen ku la laal fii wax ma ko ku la laal fii lii pour lii la lii lii la lii lii la. bu ñu kenn jëlee ci boobu aada parce que aada bu bennte bu ànd ak sutura léegi bu fekkee ñoom niñ defalee seen manuel yi boobu commencé ko dugal ci biir classe yi xale yi di ko jàng à bas âge à partir de quatre ans dafay mel ni dañoo bëgg a wax xale yi bu amee góor bu laar sa awra ah c'est normal bul wax kenn dara loolu en réalité ñi nekk ci ginnaaw mooy les grands pédophiles te pédophiles yooyu dañoo bëri alal seen lobby mooy lobby yu pédophiles yi dañoo bëri alal dañoo bëri doole ñoom ñoo nekk tamit ci ginnaaw yeneen góor jigéen yeeg yeneen affaires yi comprendre ngeen donc Macky diable la Macky saytaane la alalu saytaane la Macky c'est un franc bu bon kooku dañ ko war a jëlee si suñu dëkk nañu abal ndaysaan dafa yàqamti parce que moom biñ koy fal dafa ne cinq lay toog c'est vrai que ci loi bi ko fal am na droit toog sept ans loolu ñu ñëpp d'accord nañ ci mais sa parole bu jaratul dara rek mooy mënatu mënatuñoo am confiance ci yow parce que góor ca wax ja góor aussi ca wax ja léegi mu force yokk ci cinq ans cinq ans yooyu mu ci yokk mais mag mu ngi ci deuxième mandat am premier mandat ans la woon deuxième mandat am moom moo ko wàññil boppam def ko deux ans donc le vingt quatre février le deuxième mandat am du jeex bu ñu ko falaatee rek trois troisième mandat lay am. te bés buñ ko falaatee ngeen xam bu fekkee mosu leen gis nit ku soxor bés buñ ko falaatee ngeen gis ku yéeme dafay fayu comme Ablaye Wade la wor waxuma laa keneen mais Ablaye Wade la wor te Ablaye Wade moo ko def lu mu nekk tey comme kooku la wor waxuma laa keneen voilà buñ jógee ci loolu dama bëgg a wax ci beneen mbir xam nga Cheikh Yérim Seck nee naa ne dama ko xam comme nu ma xamee samay juróomi baaraam moom xamuma nag mais man xam naa ko Cheikh Yérim Seck bu ngeen gisee muy acharné wu ci kaw Ousmane Sonko c'est parce que dañ ko fay pour mu def ko biñ ko fi accuser affaire viol mu violé woon benn doomu magistrat mais loolu yëpp dill la buñ ko teg moom it mais il n'a pas été intelligent parce que gars yi dañu xam ni Cheikh Yérim Seck ku xarañ la ci métier xam lu bëri ci ay personnalité yu nekk Sénégal surtout ci mag yi donc dañ ko doon préparer pour noppiloo ko moom moo waraloon ñu puus xale bu jigéen boobu pour mu jege ko parce que ñun ñëpp xam nañ ni dafa bëgg jigéen xale bi jege ko joxante ay rendez kii ba am am gars yi ne kër tëndam ci kawam parce que jour bu muy joxante rendez-vous ak xale bi foofu weesu faar ci auberge bi gendarme civil ñu ngi taxaw sorewuñ parce que xam nañ ni tey dina am lu xew te dañ koy ñëw arrêté gis nga ne affaire bi gaawee lépp dañ ko préparé moo tax politique dafa salte biñ ko tëjee daan nañ ko bàyyi muy dem di faju hôpital principal dañ ko daan nañ ko accompagner ay civil pénitentiaire loolu aussi dinaa leen wax ban feebar la am euh, mais biñ demee ba ci biir ba def ko ay proposition Marème fay Sall moom moo dox loolu moom moo ko libeere c'est un pion du régime fay Sall waaw raison pour laquelle il essaie de déstabiliser Ousmane Sonko mais ça ne va pas marcher incha allah Ousmane Sonko yàlla moo ko fi andi te incha allah day changer Sénégal force nag laa leen wax force mu neex ko ak mu naxare ko day liggéey buñ ko fale te dañ koy fal Macky Sall moom moo financé Abdoulaye Balde ak Aïda Mbodj pour récupérer Ziguinchor ak Bambey euh, moo tax ñu trouver ay accord pour créer bàyyi leen Aïda Diongue aussi rejoindre na Macky Abdou Diouf dafa woo Aïssata Tall Sall mu ne ko dama bëgg nga liggéey ak Ousmane Tanor Dieng c'est-à-dire pour Macky mais indirectement Aïssata Tall Sall dafa bañ waaw moom moo ko woo mu dem ba Paris ñu toog ñu waxtaan Aïssata Tall Sall bañul directement noonu mais après deful li ko Abdou Diouf wax donc moo tax maa leen Abdou Diouf c'est un imbécile de dix-huitième degré man Ousmane Ba maa ko wax suñu alal yëpp moo ko sàcc sama moo jaay français yi Sénégal ay doomam yor ay entreprise biir Sénégal ba tey ñuy lekk suñu xaalis Abdou Diouf bi mu amee vingt quatre ans ba léegi Sénégal moo koy dundal ba tey nii Petit pale la dëkk bu ñëwee Sénégal pour lan pour lan non lii xew senegal bu ko senegal yi xamee sax suba ñu fekk Macky Palais politiciens yëpp la ñuy raxas ñëpp fiy jóge ñun dañuy nangu suñu dëkk zeeral ko suñu bopp waaw force day am bu ñuy dee sax nañ dee buggoon ngay daani man dama ko respecté parce que Bougane Gueye Dany fi mu jóge ba fi mu toll c'est un self-made man dafa ñafe laay fam yàlla jàppale ko mu gëm boppam ba yegg si fi mu yegg tey mais xam nga doomu aadama dafa lëndëm doomu aadama mu yéeme xam nga fan yi yaay dañ ko attaqué ne dafa biiral benn gel ba pare doo ko takk ma wax ci sama benn live ma ne leen loolu ay fen la amul takk na xale bi depuis un an et quelque un an quatre mois seize mois avant xale bi di am doom man Ousmane Ba maa ko wax parce que lu leer nañ laa ci am donc man maa ko défendre mais d' après investigation yu ma doon def depuis un mois et demi ma ci investiguer effectivement Bougane Dany Gueye est un produit de Macky Sall il travaille pour Macky uniquement dans le but de déstabiliser les élections pour perturber parrainage bi bu fekkee affaire yi jaar na yoon di ngeen dégg tuuti dafay rejoindre Macky man maa leen ko wax lu leer laa wax man maa ko wax te am na fu ma ko teg yàquma daram nag de sa euh, découragé wu ma ay partisan am ñëpp ñu ko gëm maa ngi leen di encouragé ngeen continuer gëm ko jàppale ko mais man maa leen ko wax du dañ dëgg la Macky bu yàggul dara recevoir na benn financement bu cent milliards CFA cent milliards CFA yoo xam ne ay lobby ñoo ko ko jox pour mu construire benn pyramide bi mu nekk di construire jam ñaajo ak nouveau palais bi ñu war a tabax jam ñaajo ah foofu bu ngeen xewre jour biñ koy war a intégré dina am ay góor jigéen ñu jógee partout dans le monde ñëw pour intégré ko dégg ngeen ah? man maa ko wax du dañ boo xoolee fan yi dafa am benn femme femme bi nag nee nañ ma kenn du tudd turam parce que boo tuddee turam armée dafa am armée quoi moom armée bi dina ñëw dal sa kaw saaga la bundu la patati patata ma ne ko man Ousmane Ba bañu ma saaga xam yenente bi lañ saaga wala man waaye de képp ku dëggu ci samay bagage boo amul sens de dinaa la yërëm de loolu de dina maa leen ko wax dinaa la yërëm dinaa la yërëm trop sax te moom femme boobu am nga ay xarit yu la jege woo nga laaj leen ñu wax la femme bi mu ngi tudd Françoise Hélène Gaye Françoise Hélène Gaye bindoon naa benn article ci moom wax parcours am wax biographie am wax jaar-jaaram wax moom mooy kan parce que dafa déclarer ni kandidaat la pour élection présidentielle yu ñu jëm mais Françoise Hélène Gueye bii def live boobu awma affaire ak moom boobu sama yoon nekkul ci lu muy wax lu muy def ak lu muy dugg intéressé wu ma mais Françoise Hélène Gueye candidate bi nga xam dafa posé candidaturam kooku force force force damay wax ci moom kenn mënumaa taree wax ci moom loolu laa bëgg mu dugg ci biir boppam Françoise Hélène Gaye boobu noonu bi posé candidature laa wax ma bi live de parce que bii live intéressé wu ma mais bi posé candidature am bëgg a diriger suñu pays wallahi azim su ma deewee sax damay wax ci moom kooku jouru Bamba Dey New York mooy bës bi ñu jeglal Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke foofu ca New York femme bi dafa tase foofu ak ay leader yu bëri ay Idrissa Seck ay Pape Diop Bokk Gis Gis ay Malick Gakou ak ñeneen ak ñeneen ci biir loolu Pape Diop euh, d'ailleurs moo ko logé hôtel trois jours yi mu fa ci biir loolu Pape Diop na ko il faut nga jàppale ma mun na ko waaye mën na nekk mais il faut nga jox ma cent mille dollars parce que xamul ni kilifa yooyu bu ñuy waxtaan ak nit dañ lay enregistré ñu enregistré ko enregistrement boobu nag yegg si si sama loxo léegi bëgguma ci woon sa wax mais xam nga lu tax ma wax ci barki démb dafa publier ci miiram miiru Facebook am ma wax leen lu mu wax foofu mu ne dootul attaqué Macky ni mu ngi baalu àq Macky mu ne dootul attaqué benn partisan wu euh, APR léegi affaire boobu jaaxal ñëpp nag man ma def capture d'écran ma publier ko ci sama miir bi ma ko publier mu envoyé ma message commencé sama attaque ma ne ko soxna si mu ne ma ne ko man du ma sa morom c'est pas ton égal que ce soit la dernière fois nga may bind ma waxe di waxee nii ak man parce que man en tant que sénégalais am naa droit wax ci Françoise Hélène Gaye candidate boo retiré sa candidature moom dootu dootoo ma dégg may wax ci yow aw ma ak yow benn problème man ma wax ci yow sa sa c'est-à-dire public sa laa lay defal xam nga ñaata nit ma bëgg fay pour ma wax ci ñoom te waxuma ci ñoom force damay wax ci yow te ba ma moytul du baax ci yow aw ma yow benn affaire nag comprendre ga voilà léegi boo xoolee loolu di ngeen dégg du yàgg dara mu recevoir. Euh, mu wala mu dem ci APR rejoindre APR xam nga Françoise Hélène Gueye dafa am benn sërëm bu feebar Maram Fay Sall moo ko faj te Maram Fay Sall fan yi dafa def ay don yu bari ci village bi Françoise Hélène Gaye dëkk fi mu originaux loolu aussi dinaa si dellu siwaat euh, loolu man maa leen ko baaxee wedee rek mun na maa bind ñu continuer ñu wax ci mun na aussi répondre que moom répondre rek lay def mun nga def live léegi tontu voilà mais il faut nga xam mag maag yow bokkuñu ci ring bi ñuy box moo tur bu baax dégg nga ah? voilà xam nga maa leen doon wax bi mu demee euh, bi Macky Sall demee France pour jënd ay armes pour préparer euh, élection yi nga ngeen blindé yi mu jot jënd man maa publier photo yi comme d'habitude rek toujours maay publier presse bi récupérer ñun ñi récupérer te loolu presse bi xamoon nañ ko mais amuñ fitu publier ko man maa publier photo yi bind ci article presse bi reprendaat ko Facebook bi yëpp reprendaat ko li ma yor ci ay preuve kenn xamul na mu toll mais ndànk-ndànk rek wan bàyyi wan amul yàqamte lépp dina génn comprendre nga mais il faut sénégalais yi xam ni man Ousmane Ba saraxe naa sama bopp Sénégal mais li si des yéen a koy def c'est sûr que nañ ma rey tey wala suba mais li si des liggéey bi yéen sénégalais yi yéen a koy yeggali surtout jeunes surtout jeunes yi comprendre nga voilà léegi bi mu demee France pour jënd arme yi euh, Macron dafa bañ parce que Macron xam na ni dafa am France dafa am intera biir France biir Sénégal Orange Total Auchan ak yeneen compagnie française yi fa nekk donc mu bañ ci la Macky dem. Chine pour ñu jaay ko ay armes Chine d'accord na xam nga armes yooyu bu ko gendarmerie wala police utiliser ci population bi ils n'auront pas de transibilité parce que c'est-à-dire c'est une arme ou une munition euh, qui n'est pas numérisée il sera impossible qu'un expert balistique donne des résultats c'est la provenance de cette munition donc loolu moo tax mu bëgg ay armes yoo xamante ni numériser wuñu ko loolu man Ousmane Ba wax force taalibe wu Ousmane Sonko man maa leen may boobu noonu léegi bu ñu jógee ci loolu dañuy dugg ci beneen mbir may leen une minute ñu dugg ci beneen mbir ah bëggoon naa aussi euh, juriste yi ñuy seetaan wax ñu est-ce que ku parrainé benn kandidaa ba pare nga bëgg a révoquer sa parrainage est-ce que c'est possible ak aussi lan ngay def yan mooy démarche yi ak aussi euh, bu fekkee da nga inscrire Sénégal par exemple nga inscrire pour voter Mbour si diggante bi nga voyage yi dem Côte d'Ivoire wala dem États-Unis nooy def ba transfert sa lieu de vote boobu noonu ci dëkk bu bees bi nga nekk loolu aussi ñi nga xam ne ni seen xel dafay màcc ci loolu bëggoon naa ngeen def ma signe ñu waxtaan ci xam nga Sénégal boo xoolee euh, ñu dugg ci beneen domaine par exemple incendie yi am fan yi ci marché yi xam nga bu ngeen seetaanee sama vidéo yu njëkk yi waxoon naa leen que marché yu bari dina lakk effectivement noonu la marché yi lakkee la yeneen incendie dina amaat fan yi tamit di ngeen déggaat ak yeneen kilifa yu décédé xama waxoon naa leen dina am benn kilifa bu mag boo xamante ni ku jege yi du fekkee élection yi yàlla def muy Bruno Diatta dina am tamit beneen politicien boo xamante ni di ngeen dégg fan yi mu dem xam naa sa tur bi mais du ko wax parce que loolu dafa xaram mais di ngeen ko dégg léegi mais xam nga lu ma si gën a jaaxal politiciens yu ci bëri surtout suñu député yi ku si nekk am nga 700 litres d' essence par mois 700 litres d' essence 700 litres de essence par député par mois 700 litres de essence par député par mois te sapeurs-pompiers yi amuñu essence bu ñu def si seen ambulance yi ak si seen camions yi pour dem def seen intervention est-ce que loolu c'est normal mais wax leen na journaliste yi wax ci loolu na sénégalais yi wax ci loolu na marabu yi nga xam ne dañ naan nañu votal Macky nañ wax ci loolu waaw nañu wax ci loolu sénégalais yeewu leen yeewu leen ngir yàlla yeewu leen may leen ma une minute ma xool message bi nii comme ça après ñu continuer xam nga tabaski bi passé e. pombiteer ak soble dafa manqué euh, liñ ci joto am sa prix yi dafa doublé wala mu triplé parce que kilo pombiteer mu ngi doon jar quatre cent cinquante bi tabaski bi desee ay quelques jours mu commencé jar mille francs CFA lan moo tax toujours bu événement yu waaj a jot commerçant yi yokku prix wu denrée yi surtout denrée yi nga xam dañ koy soxla ci jouru feet yooyu noonu fan lañ ko teg fan lañ ko teg loolu rek dafay wone ni que suñu gouvernement bi contrôlé wuñu euh, prix contrôlé wuñu commerçant yi mais en réalité boo xoolee boo xool gouvernement ci ay complice lañ surtout ministre di commerce ay complice lañ parce que dañoo monter ay entreprise parallèle ñoom ministre bi dafa monter entreprise parallèle di dem di jëndi ay produits alimentaires di ñëw di ko jaayaat léegi bu événement di waaj a ñëw loolu ñu estego woon ah la ñuy privilégié pour évacuer seen stock pour jaay ko loolu yëpp dafay daj ñoom ñëpp ay milliardaires lañ ñoom ñëpp dañoo bëri alal pendant ce temps majorité population bi amuñu luñ lekk amuñu luñ naan feebar munu ñoo faju man xam ngeen ñaata message laa jot par jour ay nit yoo xam ne photo yi ñu may envoyé billahi su ma ko ubbee su ma ko xoolee damay jooy munu ma koo xool vidéo yooyu ak photo munu ma koo xool ëpp na trente message par jour parce que ñëpp pour ñoom Ousmane Ba mën na faj ñëpp munu maa faj ñëpp man du ma gouvernement li mën rek laay def liggéeyuñ te commerçant yi koy def tamit ñu ci bëri inokwa lañ bokk ina quoi ñu ngi jooy naan osan osan osan patati osan patata ñun ñu leen di jàppale ci xeex bi pour xeex osan créer ay mouvement osan dégage ay ñoom Hannibal ji nekk ci ay ñoom Guy Marius Sagna et les autres activistes te pourtant bu événement jotee waaye inoka boobu ñoom ñooy rendi population bi ak prix yu élevé à la fin est-ce que commerçant est-ce que jàppale leen est-ce que ça jar na ko jaru ko ay naafeq la ñoom ñoo suñuy ennemi numéro un wala waxuma dëgg léegi soldaaru eh, <laughs> Françoise Hélène Guèye commencé nañ dugg di ruube quoi di attaqué mais yéen ñëpp laay démasqué benn par benn cey bu ngeen moo xamoon seetaan ma ak ñoom rek leen gérer benn par benn bu leen bu metti bu ñu jógee dañu dugg ci yeneeni mbir may leen ma tuuti ma ñëw xam nga Macky Sall dafa yeb nit ñi wallahi dafa yeb sénégalais mais dina xam ni que ñun duñ ko bàyyi mu ñuy manqué respect te jaral nañu aussi ñàkk suñu bakkan mu respecté ñu rek walla mu jóge fii man maa leen ko waaw waaw duma ko may dara dara laa ko dul may bu neexee yàlla kit nag ama ñàkk ci sama bakkan voilà léegi fan yi dafa am benn suñu mbokk sénégalais bu àndoon ak ay xaritam génn dem ci benn boit almadi ñu toog entre amis waxtaan xam naa dañoo gëjoon gisante parce que léeg-léeg xam nga rek nga am say xarit ñi tukki ñi voyage ñi dem fii après ngeen regroupé wu quelque part jël po waxtaan. Euh, waa ji mu ngi tudd seddina Omar nuñ toogee nii di waxtaan mu am ay militaire français yoo xamante ni dañoo naan ba màndi commencé di trouble ñëw di wax ak xale yu jigéen yi ñu àndaloon euh, ci loolu waa ji jóg di leen wax ni ñu bàyyi ni ñuy attaqué ay sëram mu nekk cinq militaires français yu stationné wu Dakar ñooñu attake waa ji dóor ko ba gaañ ko waa ji actuellement mu ngi ci diggante dundu ak dé léegi militaire français yooyu noonu il paraît kenn arrêté wu leen yóbbu nañ leen nag brigade gendarmerie entendre leen après ñu libéré leen loolu dama bëgg na ci gouvernement bi wax lu leer nañ ko midi na leer na leer na leer français militaire français yi def yooyu nañu leen juger bu ñu leen waree tëj ñu tëj leen bu ñu leen waree extrader ñu extrader ñu purger seen peine en France mais amul benn étranger bu ñëw suñu dëkk dañu toroxal ñun déjà ñu ñuy toroxal à l'étranger dëkk sénégalais yu bëri ñu ngi leen di toroxal en France ak feneen ba pare français yi ñëwati suñu dëkk dañu toroxal foofu loolu duñ ko accepter duñ ko accepter ah duñ ko nangu loolu duñ ko nangu man ku def noonu sama frère dinaa la def lu bon soit justice def liggéeyam soit ma zeral ko sama bopp xam nga genre affaire yu mel nii moo tax ñu naan les magistrats sont corrompus lii la fi Barthélemy Dias wax bañ tëj ko dëgg la lan moo tax procureur autosaisirul lan moo tax procureur lijjantiwu ko lan moo tax ubbiwuñ enquête lan moo tax ñuy libéré français yi noonu pour lan ñaata sénégalais lañ tëj en France ci affaire yu gën a ñàkk fulla lan moo tax gouvernement africain yi complexe tubaab yi pour lan waa gis naa yéen ñu bëri ñuy réclamer di wax que ba ngeen Ousmane Sonko ñëw ci live bi incha dina ñëw bu leen yàqamti dina ñëw maa leen ko wax dina ñëw de dina ñëw ngeen poser seen question ñu poser ko ko mu répondre leen parce que ñu bëri ñu ngi may poser ay question naan ma Ousmane Sonko nii ak nii ak naa mais je pense que nettali ci làmmiñu borom la dàqee dégg donc bu leen yàqamti léegi Cheikhou Oumar Tall euh, wala Ahmed Diallo bu fekkee yéen a ngi may dégg ngeen def commentaire ma rajouté leen ñu yeggale waxtaan bi ma am ay question yu ma leen posé bu ngeen defee commentaire bi dinaa ko gis ma rajouté leen à partir de euh, maa ngi aussi nuyu sama sëriñ Abdou Khoudous Mbacké sama xarit vraiment euh, quand je dis sama sëriñ ñun yéen ñëpp xam ngeen ne awma sëriñ waaye sama wasilala sama xarit la sama mag la maa ngi koy nuyu mu ngi foofu ci itali ak ñeneen ak ñeneen Euh, ñu si bëri mënuma lim ñëpp mais yéen ñëpp xam ngeen vraiment seen bopp donc baax na te lu sax may lim ay tur euh, sama invité yi Ahmed Diallo ngay xoox ak Cheikhou Omar Talla bu ngeen gisee bu ngeen ma déggee nga leen benn commentaire ma rajouté ñu continuer waxtaan bi euh, tey nag loolu laa bëggoon séddoo ak yéen en attendant balaa may dugal yeneen bagaas yi ñu dugal invité yi ñu yëgali waxtaan bi xam nga il faut ñu may déglu comprendre na man liggéey bi may def nii lépp lu ma fi wax suba ba ngoon damay am ay preuve je parle pas juste pour parler damay wax pour partager ak yéen lu si bëri sa yéen ma ko gën a xam donc dama leen koy fàttali rek fàttali kese la du leneen waaw fàttali rek laa leen dafa mais wallaay li may wax quatre vingt dix pour cent bi xam ngeen ko comprendre ngeen euh, donc maa ngi dugal sama waa ji Cheikhou Omar Talla envoyé naa la invitation bi bu fekkee gis nga ko nga def ma signe accepté ko ah azu en cours la ma wax donc boo xoolee Cheikh Omar Tall boo xoolee rek di nga ko gis mu connecté wu euh, bu connecté woo rek ñu ñu ñu ñu waxtaan ci ay waaw salaamaaleykum Cheikh Omar Tall maa ngi lay nuyu waaw léegi kooku mooy Cheikh Omar Tall c'est un Sénégalais d'abord nekk jeune étudiant la en management te responsable PDS la fële ci Pikine du conseil départemental ville de Pékin aussi donc aussi il est conseiller municipal commune Pékin Nord muy chroniqueur euh, à la télévision Sen TV ci émission bu ñuy wax Ndumbelaan Cheikh Omar Talla dootuñu la présenter sénégalais yu bëri ñu ngi lay suivre xam nañ la balaa ma lay poser samay question dama lay bàyyi nga nuyu euh, ñi ñuy seetaan après ñu continuer waaw euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan parce que nit jël connexion am jël jotam ak temps am toog di la déglu wala mu lay seetaan kooku amoo loo ko fayee parce que tamit euh, Ndongo Lo doon wax naan doo lay jëm ndox la je crois que ñi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan euh, Ousmane Ba ñoom ñooy dooleem et que di la remercier aussi si opportunité bii nga ñu may pour ñu mën a wax ak sénégalais su ma nee Sénégal on s'adresse à tout le monde ñoom ñoo bokk. ok euh, Cheikh Omar Talla dama am ay quelques questions yu ma la bëgg pose poser euh, première question bi moo fa ñuy waxtaan ci affaire euh, chômage bi xam nga dafa bëri ay jeunes yoo xamante ni jàng nañ ba pare te mënuñoo am liggéey ñu si bëri d'ailleurs ñu ngi si centre d'appel yu nekk Casablanca ak Rabat ak yooyu léegi yow loo xalaat ci situation boobu est-ce que responsabilité wu gouvernement bi la ñu jox ku nekk liggéey wala aussi est-ce que yenn jeunes yi tamit mënuñu góorgóorlu euh, créer seen bopp liggéey wala yow noo gisee situation bi ak ban solution nga yaakaar ni lañ ci mën a andi pour jeunes yi di mën a liggéey merci waaw Ousmane merci d'abord euh, pour question boobu mais euh, si sa présentation umpale woon ni man euh, PDS la bokk nekk membre du comité directeur bokk ci cellule de communication du PDS sànq si sa live aussi am na yu ma dégg bon se information la du ma ne dama koy weddi wala dama koy firndeel wala dama koy dëggal parce que information boobu moom li ma ko jotee la ko ñeneen ñi jote mais jàppal ni waxuma pour wax lu neex nit aussi Euh, bokk naa si ñi déggante Karim Wade saa mu ko soxlaa mën naa ko dégg dinañ waxtaan dinañ échanger et xam naa si moom détermination bi mu am pour xeex ak Macky Sall parce que jàpp naa ni euh, si trois ans de prison yi mu def Macky Sall yabal na lu mot cinquante personnes pour négocier bu fekkoon négocier wala compromis wala yërëmtalu kon génn na kaso bu yàgg mais je crois que ci ñi fi nekk ñëpp il a fait trois ans en prison kenn déggu ko et dans toute sa dignité et loolu tey bokk na sax si li ko may popularité je crois que Macky moo ko créé sax en quelque sorte parce que euh, Karim en 2009 mënul woon gagné la ñuy wax xaw ma point e mais tey Karim mu démb ak bu tey wute na et Macky nag a tout fait pour jéem ko éliminer mais tey àdduna bi Sénégal nekkul un pays isolé Sénégal dafa nekk ci international ci adduna bi am un droit international donc Macky euh, moom moo nekk en position de faiblesse moom moo nekk demandeur mais nous nous ne sommes pas benn option lañ am mooy xeex ak moom xeex ak moom nag gëm nañ ni kenn rek mënul gagné Macky Sall li koy yóbbu bu ñu sañoon mu jóge fi premier tour mais deuxième tour na dem candidat yu crédible am programme candidat yoo xam sénégalais bëgg nañ leen ñi nga xamante ni peut-être bu dul woon ñooñu existé nañ ñu bañ a voté wala ñu sànni seen vote mu nekk vote inutile moo tax ñu amee des candidats yu sérieux yu mel ni Ousmane Sonko nous sommes preneurs parce que nag ñun ñëpp ñoo bokk benn objectif mooy kii fi nekk ak façon bi muy gérer ak ni muy yoree réew mi na fi jógee et je crois que euh, en terme de popularité kenn du ne ma Karim Wade amul popularité bu dee appareil politique kenn du wax PDS parti bu ndaw la donc ci question boobu rek laa bëggoon a aborder dans le même sens maintenant euh, nous sommes en démocratie et je te félicite pour ton engagement parce que bettu ma euh, doon na ma bett ñu ne am ànd nga ak diw wala ànd nga ak diw mais da dem xool koo xamante ni nekkul woon ci état séntuwoo ci moom dara euh, gëm ko nekk ci ak conviction di ko défendre ni nga amee conviction nag sa position ci Ousmane Sonko am na ñeneen ñoo xam am nañ conviction feneen je crois que bu ñuy def politique aussi conviction da ci am solo man mii di wax ak yow euh, Macky Sall sama mam lañ ko tuddee ma Gassama gasama son gouvernement su may mag ñoo si nekk Racine Talla Mamadou Talla mais man depuis ma nekk xale Ablaye Wade laa xam. bu ma déggee turu conseil municipal wala conseil départemental wala ma nekk jeune leader loolu Abdoulaye Wade moo ko def ci man man damay tooñ gars yi sax ma leen man du ma karimiste man ab waddiste la parce que Abdoulaye Wade créé na benn audace fexe na ñun ñu nekk ay leader et je crois que ci élection yi ñu jëm Macky waxuma la 20 pour cent sax mais xam na ni mënut a jàll li gën nag mooy ñu doole suñuy biir boole sunuy doole opposition bi bañ a seen biir bañ a seen biir ñu xam ne benn adversaire la ñu am euh, Euh, ci li nga ma laaj ci affaire chômage des jeunes euh, maa ngi lay wax ni étudiant la am management parce que pour man ndaw da ngay wut xam-xam parce que Nelson Mandela da doon wax l'arme la plus puissante pour changer le moon c'est l'éducation donc su fekkee jeunes yi amuñu xam-xam du ñu mën a taxaw fi ñu war a taxaw du ñu mën a laaj du ñu mën a am conscience boobu dafa mel ni nag suñu gouvernants yi ils se plaisent jàpp jeunes yi di leen nelawal ci ay fo ci ay caaxaan ba duñu xam lan mooy seen priorité parce que Sénégal lu ëllëg encore une fois du mag ñi ñoo koy gérer Bruno est décédé à 68 ans bi mu nekkee jeune la génn major de sa promotion à l'ENA en 1973 tey au vrai sens du mot sooy seet un homme d'État mën nga jàpp ci moom mais bi mu nekkee jeune la ko assumé donc être jeune ne signifie pas que doo bokk ci liy doxal réew mi être jeune ne signifie pas que da nga war a toog di yërëmtalu danga war a imposer sa bopp le pouvoir ça s'arrache c'est pourquoi nous on a très tôt compris que élection bu am dañuy bokk bu dee élection mairie ñun ñoo dëkk ci gox bi dañ cee war a dugal suñu loxo dañ cee war a bokk euh, ni ma nekk étudiant en management terewul maa ngi liggéey si suñu mairie terewul maa ngi liggéey à la télé ñu may fay suma salaire liggéey la séq ak ñoom chaque vendredi ma wax sama xalaat terewul maa ngi am samay business bokk parce que jàpp naa du métier balaa ngay politique amal métier amal xam amal am donc ci yoon boobu la ñu nekk maintenant euh, wax nga dëgg la responsabilité elle est partagée xam nga tey euh, suñu système éducatif suñu système escolaire moo adapté wul ak li nga xam ni mooy la réalité économique du monde parce que tey da ngay jël benn booy mu dem jàngi université bac L dem fak anglais quatre ans cinq ans su génnee lan lay liggéey traducteur anglais lay nekk wala professeur anglais mën na dem mu def espagnol wala et cetera donc tey dañu waroon am système éducatif boo xamante ni dafay pare defar xale bi parce que éducation projet de société la yan type de citoyen nga war a defar yan sénégalais nga war a doxal ñan nga war a soxla loolu mooy formation bi nga xamante ni day permettre nit ñi ñu mën a am xam-xam bu. voilà voilà gis nga foofu dama lay téye foofu tuuti gis nga formation bi nga may ma une minute ñu yeggale formation bi je pense que mooy problème bi xam nga dëkk boo xamante ni ah amuñu dama lay jox exemple rek dëkk bu amul jama nga bëgg a Euh, ay techniciens. ay jamono pour ñu liggéey mm-hmm. ci domaine boobu noonu. da ngay bëri mm-hmm. ay semeurs par exemple. Mm-hmm. léegi ñun je pense que dans les normes dañu war a réorganiser waat suñu faculté yi nekk université yëpp c'est-à-dire ñu prioriser euh, secteur yi nga xamante ni. am na Sénégal nga xam ne bu jeunes yi pare dañuy dem liggéey directement comprendre nga donc je pense que ci loolu loolu loolu responsabilité wu état bi la Cheikh Omar loo ci loo ci xam loolu. waaw responsabilité état bi la foofu laay jëm ak xam nga euh, booy politique jiite réew da ngay am vision waa amee vision nga teg ci volonté xam fi nga jëm daal di def ay action yu ci jëm xam nga tey dañ ne Sénégal commencer na am pétrole donc normalement dañu waroon am ay filières yoo xam ni dañuy former suñuy ay ingénieur pétrolier booy génn bac S former leen nekk ay ingénieur ba bu ëllëgee du ñu jéggaan di wuti keneen mais le ministre de l' éducation nationale ak formation bi ñu génnee ne dañuy def formation des métiers du pétrole boo xoolee communiqué bi dañuy former ay pompistes ay huiliers ay ouvriers métiers yoo xamante ni ça ne sert à ci li nga xamante ni mooy ressource naturelle bi nga xam ne Sénégal moo ko moom doomu Sénégal ñoo ko waree jëriñoo donc tey technologie bi ak technique bi ak lépp loo xamante ni ci wàllu xarañ la dañ ko waroon tàmbalee ci doomu réew mi donc tey moo tax ma lay wax li ñuy wax employabilité employabilité mooy la formation la formation s'adapte à l'emploi c'est-à-dire ki ngay former nga xam dafay génn rek nekk prêt à l'emploi loolu benn facteur beneen facteur bi situation socio-économique réew mi parce que yëpp étranger yi ñoo koy gagné étranger yi suñu gagné marché yi bu ñu gagné seeni capitaux dañ ko yóbbu bitim réew mais su fekkee entreprise nationaux yi ñoom nga jox primauté may leen confiance boobu yaa ngi investir sa dëkk xaalis boobu ñu am day amaat retombé sur l'économie nationale donc ce qui fait que économie bi dafiy des muy benn mais entreprise moo mën a créer ay emploi entreprise moo mën a embaucher parce que état ay fonction publique lay jël te fonction publique ni ñu fa duggal dañoo néew par rapport ak population bi ensuite nga am population boo xamante ni 60 pour cent ay jeunes donc population boobu li nga war a gën a investir mooy dans la formation li nga gën a investir mooy dans l' innovation technologique parce que tout est question de priorité quand tu construis 32 milliards pour alors que soo demee Kenya wala nga dem Rwanda ils sont en train de construire ay pôles yoo xamante ni c'est des pôles informatiques créé ko ay informatique xale yi di commencé defar ay application donc produit yooyu àdduna bi ci compétition lañ nekk et comme ci compétition lañ nekk il faut créer les meilleurs et pour créer les meilleurs il faut investir dans l'éducation c'est-à-dire à la base jusqu'au sommet réformer suñu système éducatif suñu histoire sax baaxul parce que booy bi sax il Euh, dañu am problème de fierté nationale parce que booy bëri soo la waxee Lat Joor dañ naan la Lat dafa daw alors que ce n'est pas vrai Lat Joor xeex na pendant vingt cinq ans Lat Joor jàpp na ay tubaab xarafal leen am na valeur yu mu gëmoon yu mu demee ñu war ko wax sëñ Touba suñu maam sëñ Touba ne ko dencal naa lu gën li mu ne ko damaa xasa wax ba pare cest à xas na jël engagement ni tey day dem xare tey la deretam du tuuru mais valeur civique yooyu loolu nekk si suñuy maam li suñuy maam bàyyi bindal ñu constitution ñoom Thierno Souleymane Baal ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci ñun nekk ay référence su fekkee départ ci suñuy valeur socioculturelle dañuy am problème la Dior tey fee mu tëdd Dekele ñax kese la Alboury Ndiaye fee mu tëdd ci yang-yang ñax kese la suñuy héros national sax dañ leen multiplier par zéro loolu mooy premier principe l'autre principe je crois que économie dëkk suy dox mooy favoriser l'auto-emploi et maintenant pour nga auto emploi mën nga jël yow 10 millions Ousmane nga yónnee ko sa raq bu nekk Sénégal pour mu créer entreprise boo ko joxee un an mu def fayit parce que amul technique bu koy permettre mu xam lan lay investir nan lay manager entreprise am nan lay wutee ay profit nan lay defee gestion des ressources humaines je crois que euh, le deal ce ne pas de demander de l'emploi tàllal sa loxo tàllal sa CV le deal mooy nga gëm sa bopp jàpp ni euh, fii nga jëm ni da nga war a activement sa développement réew mais tey bu ñu demee ci réew ba ndaw ñi amatuñu yaakaar gisatuñu benn ëllëg bu leer moo tax xale yi dañuy dem di dugg ci gaal yi mun naa la woon sama koñ booy yu bëri loo leen wax yoonu Maroc bi leen lay wax loolu lañ gëm parce que loolu moo nekk seen bopp parce que poids social bi tey soo nekkee ndaw war a toll ci def munoo def wala toll ci am munoo am nga gis papa yaay nga war leen a wallu ci kër gi moto motle woo loolu moo tax les jeunes ils ne sont pas occupés et gouvernants yi plus les médias dañuy endormir ndaw ñi ci ay puukare ci ay caaxaan programme télé amul dara lu ci yee benn jeune euh, commencé en que télé bi ma TV ay rajo. ok léegi. léegi allo yaa ngi may dégg allo. maa ngi waaw maa ngi dégg. alors dafa mel ni da am problème mu connexion téye la waaw léegi dama lay téye foofu xam nga en parlant de de di chômage des jeunes et leur formation. Mm-hmm. on va parler aussi. Euh, la gestion de nos ressources naturelles parce que xam nga ressource bi ak euh, emploi bi euh, pour les jeunes dafa connecté dafa am connexion mm. nga parce que bu mm. fekkee on a ah. des ressources naturelles mm. war nañ ko mën a exploiter avec manière ba nga xamante ni dafay créer emploi ok mais li ma ci métti mooy tey boo xoolee secteur yu bëri fuy suñu ressource naturelle yi nekk ñi koy exploité bu fekkee asiatique yi fa nekk d'habitude asiatique yi dañuy andi seeni nit la ñuy andi bu dee chinois yi dañuy andi seeni employé recruté ay quelques sénégalais rek ñu liggéey boo demee ay Casamance si zircon bi noonu la demee ci bois beeg ah, affaire yooyu mais dooguma la mën naa mën naa la jox exemple liggéey dooguma la donc loolu ci contra yi donc loolu je pense que ci contrat yi la te ni ñuy yi ni koy signé la quoi léegi wax ñu ci suñu ressource naturelle gestion wu suñu ressource naturelle euh, bu Sénégal alo bon d'abord. Euh, dañuy. allo alo maa lay waaw ok vas-y. waaw euh, donc macha allah dama la bëggoon jox exemple rek man fi ma dëkk la ñu indil arène. boo comprendre question bi mën naa la ko posé waat. non non j'ai compris j'ai compris la question j'ai parfaitement compris la question réseau bi mooy. ok d'accord euh, alors donc développé ñu ngi dafa mel ni moom dafa am problème mu connexion euh, dem na mais Cheikh Oumar Talla nekk jeune bu. Euh, ñëwaat na def ma signe ma rajouté la nga yeggali léegi Ahmed Diallo ngay xoox bu fekkee tamit yaa ngi may dégg euh, def ma signe. defal benn commentaire ma jël la ñu waxtaan tuuti parce que yow il faut nga dugg euh, répondre ay quelques questions euh, Cheikh Omar Talla bu fekkee sa connexion ñëwaat na nga def benn benn commentaire rek ma rajouté la ñu ñu ñu ñu yeggali waxtaan bi après man am naa yeneen lu mu war a wax comme ça ma libéré gars yi parce que c'est sûr que ñu nekk Europe mu ngi commencé guddi ci ñoom ah may nuyu sama sœur bi nekk euh, New York euh, mais mu ngi Washington wala Delaware léegi Jeneva soxna si nuyu naa la bu baax euh, di nuyu sama gaayab ñoom Alioune Sow ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar Cheikh Oumar Talla bu fekkee yaa ngi may déglu nga defaat ma signe ma jëlaat la parce que problème connexion la si sa boor xam nga lii rek dafay wane ni Sénégal liggéeyuñ ah connexion bu baax sax munu faa am ah ah mais xoolal jeune bu mel ni Cheikhou Oumar xarañ bopp bi baax ah mu am ay idées yu bien tey plateau yëpp dañ ko doon invité muy partager euh, xam-xamam ak euh, gars yi mais duñ ko def parce que genre yi gars yi New York maa ngi lay nuyu hmm? Ousmane Dramé ñu ngi lay nuyu di la ziar waaw jaajëf euh, grand dama bëggoon rek lu lu gaaw rek nga wax ñu sa xalaat situation Sénégal bi actuellement. la situation du Sénégal mës a changé. l'avant 1958 ba ndege ni mooy continuer. old school bi amatul njëriñ. màggati politiciens yi leen dàq ñu dem jël xale yi nga xam ne ñoom appala massé ñoom appala massé ni ñuy def. système bi baaxut mësta baax te xamu leen fu ngeen jëm. sacrifice bi doy na sëkk nit ñi sonn nañ. dem nañ ba mu màggat bi waxtaan ak bi jaww mu suñoo tedd Sénégal. te ay jàmbaar lañ ku ñëw Amérique liggéey ku dem Libye liggéey ku dem France liggéey ku dem Gambie liggéey un Sénégal mënut te tekk dara Sénégal lii dafa dafa war a jeex dafa war a dekk kan booloo ànd bàyyi lépp luy coow nañ ko arrêté te ànd ñun ñëpp am fulla taxaw ko commune boobu nag am ci les libéraux dëgg gouverneur am naa ci information yu wóor commune bi am ci les libéraux yi dana am te noonu ko waxee am na loo ci bàyyi am na lu ci des kan bokk jóg am fula am fayda Ousmane Sonko xale la moroomu xale yi la mook Apple S ex ñoo maase kan bokk jóg am fula foqal ci réew mi loolu képp moom laa Ousmane nga bàyyi ñeneen wax man daal maa ngi ci ginnaaw xale yi xale yi laa supporté je crois plus à ces à ces bières là gëmatuma leen mësatuma leen a gëm sama àdduna yëpp ñoo ko yàq ba may gone kenn ëpp ma woon xam-xam kenn dàq ma a jàng kenn ëpp ma woon fit du benn yoon Macky sal ma man ko bi nekk fi maa ko man mu dem Sénégal bi milliardaire à la trente deuxième minute man du ma ko nangu kan bokk jóg am fulla am fayda laaj réew mi encadré xale yi xale yi defar ko adduna bi yomb nag parce que benn système la benn système de gouvernance moo am la ca des mooy nga xool sa njëriñal réew xool sa njëriñal askan bëgg sa réew boot say xale defar réew mi loolu képp la son ko mën na ko yow mi sax mën nga ko Assane Mbacké mën na keneen mën na ko màggat ñi ne leen dàq ñu dem seen yoon ñu jël réew defaraat ko bu fekkee bëgg nañoo dem maa ngi jégalu Ousmane jaajëf jaajëf grand merci li nga wax am na solo euh, kooku mooy Ousmane Dramé euh, bu nekk New York mu nekk suma grand ma xam ko depuis très longtemps daan nañ gisante ku am diine ku bien ku bëgg Sénégal euh, Sénégal rek ko ñor waa Cheikh Omar Talla nee na demande pour ñu yeggali waxtaan bi parce que li ngay wax am na solo Cheikh Omar Talla Cheikh Omar demande bi Cheikh Omar Talla envoyé naa la demande bi ñu yegali waxtaan bi boo ko gisee rek nga accepté ko comme ça ñu yegali connexion bi moo yéex nag Sénégal ndeysaan Macky Sall mu ngi liggéey bu baax sax surtout ci mbiru internet bi internetu Sénégal aka gaaw xoolal ma rek yeména voilà Cheikh Omar Talla question problème mu connexion nga amoon mais dañuy dellu ci question la gestion de nos ressources naturelles loo ñu ciy baaxee allo yaa may dégg allo allo yaa may dégg dafay dagg quoi day daw di euh, ñëw waaw lii rek dafay wone dëkk boo xam ne maîtriser woo say télécommunication munoo prétendre émergence waaw <laughs> mais dara yàlla baax na lépp dina changer léegi bientôt incha allah léegi wax ñu sur la gestion de nos ressources naturelles voilà sur la gestion de nos ressources naturelles c'est très simple constitution bi sénégalais yi voté damay bëgg nit ñi di gëstu aussi constitution bi ñu mujjee voté nga Macky waxoon na ay quinze points et cetera loolu rek déjà du yoon parce que Euh, booy changer constitution da nga koy changer nit ñi voté mais du ci ay poñ. alors benn ci poñ yooyu am na boo xamante ni dañ ko tuddoo woon la gestion des ressources naturelles tey soo demee ci constitution bi dañ ci bind les ressources naturelles appartiennent aux populations les ressources naturelles appartiennent aux populations maanaam lépp luy meññeef luy jóge ci suuf si jóge ci géej gi di jóge ci jaww ji askan wi moo ko moom donc je crois que droit constitutionnel la ñu am pour contrôler li nga xam ni mooy suñu ay ressources naturelles Sénégal réew la boo xamante ni xéwal dafay am te man loolu laa gëm parce que réew bu Serigne Touba ne réew bu Alaaji Malick ne réew bu Maam Limaamu Laay nekk réew boo xamante ni mag ñu baax ñaa ngi fi mënul ñàkk yàlla def xéwal donc tey ni ñu cité woo géographiquement rek suñu position ci géej gi rek xewal dañ ko pàccoo keroog maa lay dégg ngay wax waxu contrat dafa am ay contrat yoo xam dañ ko signé ay contrat léonien c'est-à-dire contrat yoo xamante ni boo ci xasee dugg pour nga génn si problème la wala boo ciy génn di nga fay milliards yu ëpp sax sa budget te tey sooy seet nga am gëstu pétrole Afrique moo am guerre moo tax parfois ñu naan la malédiction du pétrole moo tax ñu bëri ragal sax pétrole ndaxte seetlu nañ fépp fu mu am askan wi duñ ko jëfandikoo mais au contraire askan woo moom connexion dafa am euh, problème dafay tagg di dem di ñëw voilà il est allo voilà damatina connexion bi moo am problème lii rek am na lu muy euh, euh, wax am na lu muy tekki connexion bi baax bu fekkee euh, Ahmed Diallo ngee xoox yaa ngi may déglu nga dugg ñu waxtaan sinon Jammeh Landiatta bu fekkee aussi yaa may déglu nga def commentaire ñu continuer waxtaan bi Euh, Cheikh Oumar Tall vraiment bëggoon naa poser ay quelques questions parce que amoon naa question sur les enjeux des élections sur la justice ah la jeunesse et l'engagement citoyen amoon na yen question vraiment yu xarañ yoo xamante ni xam naa ne yow da nga ciy indi ay réponse parce que macha allah macha allah vraiment vraiment macha allah su ma ne woon cëpp Sénégal foo nekk dinaa la loxati parce que dañuy liggéey ensemble incha allah Sénégal dañ koy développé force te ñun jeunes yi ñoo koy développé voilà donc comme euh, malheureusement noonu la affaire bi demee sama gars yi dama leen di ñaanal di leen baalu àq te di leen tàggu ba fan yi incha allah jërë ngeen jëf merci.